yàlla ñu yàlla may ak dégg amiin yaa rabbi leer ci bi la bët di leerlal leer la waaye ba am solo mooy ba xol bay bët moom xool rek la am xole gi nañ xoolat suñuy bët yi lépp lu yàlla wane waaye nañ fexe gis ko ci suñu xol mu wan yàlla suñu nopp dégloo rek la am xolay dégg nañu ubbi suñuy nopp di dégloo lépp lu yàlla jàngale ci ay yëngu ci nit la jógee mbaa yëngatu lu mën a doon la waaye nañu am xol bu am ak dégg te mu dégluñ yàlla mboolem suñu yëguwaay yi juróom nag nañ ko yóbbu ci loolu kon danañ yëg ne allahu yàlla nuuru samawaati wal ard yàlla na yàlla may dégg ñoo ngi ci koor matu ñaar fukkee li fan yi yàlla nañu yàlla gërëmal suñu koor lépp luy mbaax boo xam ne yàlla diggee na ko ci ku woor yàlla nañu ko yàlla may ci gi koor te may gi gën a rëy yàlla di ko maye mooy alxuraan leer gi mu doon yàlla dugal ko ci xolub jaam bi yàlla nañu yàlla may loolu ci barket koor gi ku woor ba dog jot soxla nga loo dogee bu ko yàlla jëfee lool nañ xam ne am ko neex na lool yàlla ñu ko yàlla yombalal te la ca gën yàlla ñu ko yàlla jox ca lekk ya ca naan ya yàllaay borom xiwal moo wax nañ ko ñaan mu may ñu bu ñu gis dara mu yomb ba ñu foog ne ndax jaratul ñaan yàlla bés bu ko yàlla jëfee lool dinañ xam ne am ko baax na kon nañ koy ñaan yàlla ci jamono bu nekk suñuy gis yàlla yàlla leeral ko ñawal ko mu ñuy wan dëgg ñuy dégg noonu mu ñuy wan déggloo dëgg yàlla di ñu xiir ci lim bëgg ak lim gërëm ci sunu waxin ak sunu jëfin ci sunu zahir ak sunu baatin yàlla ñu yàlla def ñuy leeruk lislaam di njub ak lislaam bu fu ñu nekk rek foofu njub rek fay am ci nit ñi ci jinne yi ci mbooleem xeetu mbindeef yàlla yu ñu xam ak yu ñu xamul lépp luy gàllankoor nit ba ngëm di wàññeeku yàlla nañu yàlla dàqal loola lépp luy dal ci ay cër ba cër di lott dootul mën a yëngu jëm ci jaamu yàlla bu yàlla sant jaami yàlla yàlla musal ca loola yàlla may ñu wér may ñu kàttan gërëmal ñu suñu yëngu suñuy dal ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi hurmati mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu wa ma dalika ala allahi bi aziz allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima sabaqana الرحيم وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ اهضي لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالمحضر الحمد لله تقوى كار الحمد لله تقوى قري yàlla may ñu ñu war ko ci nañ gisee ne la yàlla fëggee ci njàngale bi yonente sallallahu alayhi wa sallam bañ matal ko ñoo ngi sant yàlla ci loolu tey ndokkelante ak yéen ci weeru koor wi ñu génnee di weer bu mag weer bu barkeel kon nag ñu dellu si waat ci suñu àllarba yi ñuy jàng alquran ñoo ngi ci suratu Noor ñu mottali saar yi balaa ñu delluwaat ci suñu téere xadis yi suuratu Nuur amagum nañ ci ñaari ngoonu àllarba xëy na ñetteelu ngoonu àllarba gi tey dana war a mën a mat ñoo ngi yeewalee woon ci àllarba ji jàll ci suratu nóor ci aaya bi nga xam ne mooy wax nuurullahi allahu nuuru samawati wal ard walañ yeewalee woon kon tey ñu jàll ci la ca topp wallahu bi kulli shay'in alimun yàlla teg ci ne fi buyootin tudd yàlla bi yàlla mii ñuy tudd yàlla mii di borom leeru asamaan ak suuf wala di leeru asamaan ak suuf yàlla mii de dinañ ko tudd fi buyootin ci ay néeg yoo xam ne atina digal ne allahu yàlla antur fa an yëkkati néeg ya ba mu kowe néeg yi ñuy tuddee yàlla yàlla santaane na nañu kowel néeg yi bu yàlla waxee nañ kowel néeg yi nag ban xeetu kowel la ndax kowel ko ci ay tabax yu gudd la wala boog ndax yëkkati ca at lëf lu ñu mën a woowee xubbatu la wala mënaara sorora loolu mooy kowel gi yàlla santaane wala boog kowel gi mooy ñu darajaal néegu yàlla yi suñuy xol ba yëg ne lu kowee googu duñ fa tudd ku dul yàlla lan mooy kowel gi lu mu ci mën a doon rek santaaneeb yàlla la ko mën a jëfee ca zahir te mooy kowel xubba yaag soroora yaag kowel saqfu ba mooy téet ba lépp boo ci jubloo rek yaa ngay matal ndigalul yàlla baax na waaye nag ba ci gën a mat nag mooy nañ kowel néegu yàlla ci suñu xol yi nañu yëg ne néegub yàlla dañ ko war a kowel ni ñu yëgee ne alxuraan dañ ko war a kowel alxuraan jamono bu nekk war nañoo yëg ne moo gën a màgg lépp luy màgg ba bu ñu amee sax ay téere yu ñu war a teglante nañ jël alxuraan mu féetewoo ca kaw nga xam ay këyit la rek de waaye yëg ba ñu yëg ca suñu xol ne alxuraan a gën a màgg lépp ñu jël alxuraan jël teg ko ca kaw téere ya kowel nañ alxuraan nañ jël néegu yàlla itam yëgee ko noonu kowel ko ci suñu xol ba buñ jël benn téere muy féetewoo kaw téereb alxuraan néegu yàlla yi yeewee na kowel ndax yàlla lañ koy tudd te tur yàlla dafa laab fu mu nekk dañ ko war a laabal ci lépp lu ñaaw wa yuskaru wa yuskara ñuy tudd fiihaa ci néeg yooyu ismuhu tur yàlla néeg yi nañ ko koweel te di ca tudd tur yàlla tudd tur yàlla nag mooy julli juróom waaye ba tey tudd tur yàlla mën na nekk itam nit ñi bu ñu paree seen julli ñu yëkkati seen baat siikar ni ko tijaan yi defee suba angoon ñu daje woo di tudd yàlla seen wird laasim la wala seen wasifa la wala moo xam dog bu ñu am la néegu yàlla yi daal ci barabu tuddukaay yàlla yi gën a laab yi gën a bëgg ci la bokk kon yàlla nee na wu yuskara fiha ñuy tudd ci néeg yooyu ismuhu turam moom yàlla di ko wéetal yu sabbihu ñuy sabbal ci néeg yooyu mooy ñuy julli fiha ci néeg yi ñuy julli di sabbihu lahu ñuy tàbbalal yàlla fiha ci néeg yi bin bin xudd wi ci suba yi wal asaali ak ngoon yi suba ngoon nañuy tudd yàlla ca néegu yàlla yi ñu ya ñu war a kowel xam nga tudd yàlla suba ngoon a ngi kon yàlla ko santaane te nee nañ ko defee ci néegam yi itam jàkk ya néegam yi la këru nitu yàlla yi itam néegu yàlla xolu jaamu yàlla yi itam néegu yàlla la kon bu yàlla waxee nañ ko wel néegam nañ jàppaale ba tey ne néegee ñu war a kowel xam nga néegub yàlla jàkka ju ñu tabax xamee nañ ko lool néegub yàlla kaabatullahi ba xamee nañ ko lool jumaa yi it noonu waaye kër goo xam ne ab jullit fa dëkkee itam rek jullit booba na def kër booba muy néegu yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen ràppal seen i kër yi ci ñàkk faa def ay nawafil ci ñàkk faa jullee boo naree jullee lépp ci jàkka ji itam bàyyi ci ay rakk yoo xam ne di nga ko defee sa kër waaye nag néegu yàlla bi gën a rëy ci néegi mooy sa xol bi yow jàmbi koweelal néegu yàlla ci sororo ya ca tabax ya ca tudd fa yàlla waaye jëlal sa xol bi nag koweel sa jëmm ji te xam ne moo denc néeg bi yàlla xaj ci kaw suuf ndax yàlla ne xajul ci asamaan yi juróom-ñaar xajul ci suuf yi juróom-ñaar waaye xaj na ci xolab jaamam bu ko gëm kon nag bu néeg ba yeyoo ñu màggal ko xolub jaam boobu yàlla xajew moo gën a yeyoo ñu kowe ko booy sol mbub mu rafet yéeneel ne yaa ngi sol mbub mu rafet ndax jël taar bi yàlla wax na ngeen ko jël ci mbooleem jàkk yi te yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne defal yàlla defal na ma mbooleem suuf lépp mu jàkk la kon booy sol mbub mu rafet yéeneel ne néegub yàlla bi ngay woddee mbub mu rafet moomu looy def ci la koloñ boo laal la loo mën a taarloo ci xeetu taar rek waruwaay la dëkkuwaay la col la lekk la naan la loo mën a jël ci taarlu rek jublu ca yaa ngay màggal néegu yàlla bi nga xam ne mooy sa xol bi te yàlla wax ne xajul fenn fu dul ci xolub jàmm bu gëm boobu boo ko defee rek yaa ngay topp ndigalul yàlla li mu wax ne na ngeen ko wel néegam yi te na ngeen ko ci tudd nañ yaatal dégg yi kon yàlla santaane na néeg yooyu nañ ciy tudd yàlla di ci màggal yàlla suba ak ngoon ab tariqa ngi nag tariqatu tijaniya xamee nañ ko muy tariqa boo xam ne day dajale ay nitam ci néegu yàlla yi di tudd yàlla suba ak ngoon kon ndigal li dafa mel ni tariqa tijaan bi mu ñëwee ndigal la rek la topp kon alquran ak sunna dëgg dëgg ku ko dégg di nga xam ne tariqa tijaan léppam dafa dëppoog alquran ak sunna alhamdulilahi kon ci xiwalu mën di tudd yàlla suba ak ngoon ci néegu yàlla yi ni ko yàlla santaane rijaalun ay góor a ngi nag ci néeg yooyu ñii tudd yàlla ci yooyu ñii tudd yàlla ay góor lañu yoo xam ne laa tulhihim soxlaalu leen tijaaratun am njënd wala bayul du caageen am njaay an zikrillahi ba bàyyi tudd yàlla wa iqaami salaati wala ñuy bàyyi taxawal seeni julli góor yi yittewoo tudd yàlla ci néegu yàlla yooyu ñoom daal ab commerce du leen soxlaal ba tax ñu bàyyi tudd yàlla ci néegam yi bu bu ñu xasee ba nekk ci tudd yàlla moo xam ci jàkka ja la moo xam ci kër ga la wala moo xam fu ñu mën a nekk la xol ba muy néeg ba ñu ngay tudd yàlla am commerce du leen mën a këf ba tax ñu dem defi commerce ba bàyyi tudd yàlla ga waaye nag loo cay déggee du ñu bàyyi tudd yàlla dem ca commerce ba waaye duñ bàyyi commerce ba itam kay taw tudd yàlla kay tudd yàlla dëgg dëgg tudd ba xolam di tudd fu mu mën a nekk rek ci lu mën a nekk rek mu ngi ko boole tudd yàlla kon nag yii ay góor lañu yoo xam ne laa tulhihim du leen soxlaal tijaaratul am njënd wala bayul lu caageen am njaay soxlaal leen an zikrillahi bañ bàyyi tudd yàlla bu ñuy commerce ñëw ci tudd yàlla bu ñuy tudd yàlla ñoo nga ca tudd yàlla fu ñu mën a nekk rek daal amul lu leen di yóbbee ñu bañ a tudd yàlla amul lu leen di yóbbee ñu bañ a taxawal julli wa ita is zakat yi amul lu leen di yóbbee ñu bañ a génne azaka ñoom daal ay góor lañu yoo xam ne yaxaafoona dañuy ragal yow man bés boo xam ne tataqallabu dana soppeeku tataqallabu dana wëlbateku fii ci bés boobu alqulubu xol yi wal absaaru ak gis yi ñoom ñoo ngay xalaat bés boo xam ne mu ngi teew seen kanam jamono bu nekk nga xam ne xol yi danañ tiit danañ jaaxle bët yi danañ ut fu ñu mën a jaar ba mën a raw ci mbooleem ndeyjoor ak càmmoñ bés booba ñoom da leen di tiital ba ñu ngay yittewoo balaa mu yegg di ñu mën a ut fu ñu jaar ba raw kon moo tax commerce bi njënd ma ak njaay ma du leen soxlaal ba ñu bàyyi tudd yàlla ndax xam nañ ne tudd yàlla rek moo leen mën a musal ci loola di bés booba war a yegg si wa yaziiduhum li yajziyahum allahu ahsana ma amilu ndax bés booba bu yettee li yajziyahum ngir mu fay leen allahu yàlla ahsana ma amilu la gën a rafet ci lañ doon jëfee kuy def lu baax te yàlla tax bés a ngi ñëw yàlla dina ko fay li gën a baax lam doon jëfee bu nekkee da ngaa jël sax waxtu jagleel ko tudd yàlla yàlla dana la tudd ci waxtu woo xam ne moo gën sa waxtu ba ci tudd tur woo xam ne moo gën sa tur bi nga ko doon tudd naka noonu dangaa jëloon sa alal di ko dundee ci yoon yàlla bés dana jot yàlla fayanteeg yow ci alal di gën sa alal jooju ci waxtu woo xam ne nga am lu la yàlla fayee moo doon gën nga amoon ko ci bés booba woon nga ko doon dundale lu gën a baax la nga doon jëfee la lay fay wa yazidahum te daf leen di dolliwaat sax min fadlihi ci mbaaxam gi moom yàlla yàlla day fay ba pare dolliwaat jàmm bi nag ci ngëneelam yi nga xam ne moom moo ko moomal boppam da koy maye rek ci coobareem ndax fadlullahi amul yem waay moo tax day wax ci alxuraan mooy jox mbaaxam ku ko sopp kon day fay te dolliwaat ci ngëneelam ndax wallaahu yàlla mii di maye di dolli yarzuqu mooy wasagal man yashaa'u ku ko soob bi xayri xisaabin ci dudul muy jéem a seet naan nit ki lii la yoyoo lii laa koy may déedéet moom kuy mayee ca mbaaxam ga rek lay maye xam nga kii maye ca na ka muy may toll bokkul ak kii maye ndax moom mii maye moo toll nii kuy maye di seet ña ngay may nu ñu toll mun na am dana tuuti lool ci ñi mun na am it xëy na mu bari ca ñeen waaye ku tabeeg ku màndu kuy maye ba jéem a jël tabeeg yàlla gi moom buy maye du xam ki muy may nu mu toll kem moom na mu toll rek lay maye benn xale wax na ci benn buur buur bi daf ko gis mu kanam bu leer mu yëg ne xale bii daal xale bu muus la xale bii daal xale bu muus la ci foogam ci rafet njottam mu waxee xale bi ban saar ngay jàng xale bi ne ko maa ngi jàng inna fatahna laka fathan mubinan inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfira allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara xam nga saar wi dafa neex lool ndax yàllaay dig yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mayam yu rëy yi ci moom xale ba jàng saar wa buur ba gën a see bég ndax wax ja mel na ni ci moom lañ ko jëmale mu dal di jël ab dërëm may xale bi xale bi bañ ne du ko jël jëlal jëlal mu bañ ne du ko jël lu tax mu ne ndax sama bàyyi daf may aaye may daf may aaye lu mel nii daf may aaye ñaan mu ne boo demee ne ko buura ma ko may mu ne ko kon du ma gëm lu tax mu ne ndax dërëm du may buur buur ba jëlee ci tiitaange jaaxle mel ni yet nga ko dóor mu jaral ko mu dem ba ci kër xale ba fekki bàyyi ba mu demee dafa mujj jël xale ba jël ko yóbbu ko fa muy dugal ay doomam ñuy jàng boole doomu kooka ak doomam ya benn jànguwaay ngeen déggee ci rek ne kuy maye da ngaa war a maye li nga toll kon nag yàlla ni mu toll tolluwaay bu mag a mag a mag la buy maye day maye rek da rëy de xisaab yi ci dul nuy xisaab ci muy may moom mooy kan arab danay wax ne fulaanun yunfiqu bi rëy de xisaab waaye daal dafay maye ci dul mu seet ka muy may wax ju mel noonu la nag ku ba ku baax kuy jëflanteeg jaamu yàlla yi ci jëflanteeg yàlla ak jaam yi noonu la war a mel wala dina gaa ya nga xam ne kafaroo weddi nañu amaaluhum ñoom seen jëf di ka saraabin ni ki saraab la rek ni ki janoox la bi qiiatin ci pàkk boo xam ne am ndend la yax sébuhu da koy foog asam aanu ku marki ma an ne ndox la xata ida jaahu ba yëg ca moom nag lam yi jiitu du ko fekk see an muy dara ab yéefar jëfam lu mën a jël ci xeetu lu baax di ko dundale ci yoonu yàlla moom moo ko tuddee dundale ci yoonu yàlla waaye yàlla nanguwul ne loola dundale la ci yoonam ka yàllay nangul jëfam muy dundale ci yoonu yàlla mooy ka nga xam ne dafa gëm yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam kooka lu mu jëf rek lu baax la lu yàlla gërëm la ka gëmul yàlla ak yonent bi nag la muy jëf loolu la yàlla misaal ba tey ne mu ngi mel ni koo xam ne dafa mar ak maram mu métti lool tegu ci yoon di dox dem ba gis ak ndend lu mel ni ndox muy melaxte mu yàkkam ci faa yegg ndax maram mu métti rawatina ci goudron ngeen koy gën a gis boo xoolee ci tàlleekub tali bi day mel ni ndox a fa taal ku mar nag maram mu métti yàkkamtee yegg ca loola bu yeggee du fa fekk lu dul sàlleef bi yoon rek ab ndend rek la fay fekk yàlla nag nee na misaalu bi yéefar bi ci ay jëfam yim foog ne ndax lu baax la nii rek la mel luñ mën a def ci xeetu jëf ju baax it du dara ndax lay doonal dara jëf yi mooy gëm yàlla gëm yonentam buñ gëmee yàlla yi gëmuñ yonent bi moo tax dara mënu leen fa nekkal kon lu baax ñoo ngi koy amee ci gëm yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu bon lépp ñoo ngi koy amee ci weddiku yal nañu yàlla musal ci weddiku wa wajada allaha indahu yemul ca sax de waaye bu demee ba yegg nag foofa wa wajada day fekk allaha yàlla indahu foofa mu fekkoon loola mel ni dox fa wafaahu xisaabahu yàlla dal di ko fi matalal nag xisaabam yàlla dal di fayanteeg moom nag lam doon jëfee ci àddina ci wét yàlla foofu la yàllay fayanteeg moom nag wallahu yàlla mii di fayanteeg jaam yi ci kenn ku nekk la nga jëf sariul xisaab bi ku gaaw la ca na muy fayantee ak jaamam gaaw la ca na muy xisaabee la jaam defoon sariul xisaab seet leen yàlla ay jëfinam ci jaam yi bokkul ak jëfini jaam yi ci seen bopp jaam bu nekk bëggee jëf ci boppam la muy toog di xalaat ci ay xalaatam dana ko jëlal waxtu yàgg lool ak njubte yu bari lool rawatina mu bëgg caa boole nag ay jaam yu bari fokk dina wut ndimbalal bët bu gën a gudd bëtu keseem nopp bu gën a mën a yaatu dégg nopp keseem tànk yu gën a mën a gaaw a jokkoog ñëpp lu nekk rek dina ca wut ndimbal ndax lottal doomu aadama te du tee ay njum njumtee kese lay def yàlla nag buy fayanteeg jaam yi ku gaaw xisaab la ndax kenn ku nekk daf lay xisaab ci sa bopp kenn ku nekk daf lay xisaab ci sa bopp sa loxo di seede ne maa doon def lii bët naan maa xooloon lii tànk naan maa demoon fii làmmiñ di wax naan maa waxoon lii cër yi benn bu nekk ak lay seedeel kon xisaabu yàlla ci jaam yi mu ngi koy defee kenn ku nekk ci boppam ndax kenn ku nekk yàllaa la gën a jege sa nekk bu bëggee xam loo wax ak loo jëf ci sa bopp rek la koy xamee kon moo gën a gaaw bande bu ñu enregistré muy feeñal jëmm yaag feeñal wax ya kon yàlla sariul xisaab ku gaaw la nu mu xisaabee jaamam yi benn waxtu benn gendeeku ñoom ñëpp mën na leen cee dekkal kenn ku nekk mu xisaab la xam loo yeeyoo ci ay yërmandeem wala ci ay mbugalam ci yéefar bi nag bés booba la ko yàlla wan ne ko la nga doon jëf yépp jàppal ne dafa meloon ni jënox boobu rek nag ndax yàlla ku gaaw lu muy xisaabee la aw ka zulumaatin fi baxrin lu jiyin wala boobu nga jël misaalu ku wedd yàlla ki ci ay jëfam yàlla nee na ka zulumaatin dafa mel ni ay lëndëm la ay lëndëm fi baxrin ci géej goo xam ne lu jiyin dafa xóot lool géer géej gu xóot lool yaxshaahu mu ngay muur géej ga wala mu ngay muur waaje mawjun ay duus min fawqihi te nekk na ca kaw duus yooya ba tey mawjun ay duus yoo xam ne min fawqihi nekkaat na ca ko am saxaabun ay niir géej xóotaayam ku ca dugg xam na ne mu nga ca lu tiis mu nga ca lu lëndëm waaye rawatina nag géej goo xam ne duusa nga ca kawam duusa nga ca kaw du duus boowaati ay niir nekkaat ca kawamati nga xam ne lépp zulmaatun ay lëndëm la baaduha lenn ca fawqa baadin mu nga ca kaw leneen la lëndëm a ngi lëndëm a ngi ca kawam lëndëm a ngi ca kawam muy ñetti xeetu lëndëm yàlla nee na mooy misaalu waa ji mel noonu ñetti xeetu lëndëm yooyu ci géej googu nga xam ne doomu aadama lott na ca mën caa xet li boppam ca dara yéefar bi ay jëfam nag noonu la mel ñetti duus bu ca nekk lëndëm la ci géej gu xóot gu nu mel xalaat leen lu mel noonu ñetti yooyu mooy lan kenn ku nekk buñ ko tuddee ñett rek war na jël déggam dund ko ci ñett yooya mun nga ne yéefar ba mun nga ne jullit ba mun nga ne ku gëm yàlla wala jullit bi nga jàppal ne maqaamab lislaam de leer la waaye as lëndëm a nga ca loo xam ne ku ko doyloo rek mucc day jafe maqaamab iman moo gën a tee leer waaye def na lëndëm maqaana maqaamab ihsaan nag ku ca xettaleku xettaleku nga ci mboolem ñetti lëndëm yi jegeel dégg ndax bu ñu waxee wax yu ni mel jëmale ko ci yéefar te yow ngay jullit rek day mel ni amoo ci wàll mën na laa naagaloo kon nag utal loo ci ab jël ko xam ne yaa ko moom nga jéem a mucc ci lëndam yooyu moo tax ma ne dañ jël jël dégg ni jegeel ko ba ñun ñu am luñ ci moom ndax ñu góorgóorlu mucc ci xeetu lëndam yëpp nag kon islaam am na iman am na ihsaan am na bu ca nekk boo ca doyloo ak nekk bu woyof rek lëndam la ba tey boo xettale ko ci lëndam yëpp nag dugg nga ci leer te yàlla mooy leer allahu nuuru samawaati wal ard ida axraja bu fekkee génnee na moom waa ji nekk ci biir géej bu xóot googu ci lëndëm yooyu di ñett bu fekkee génnee na yettawoo loxoom ci lëndëm yooyu lam yakkat di waaj a jege sax yaraaxaa di gis loxo bi ndax lëndamaay lëndëm ga métti na ba nga xam ne bu génnee loxoom sax du mën a gis loxo ba ndax lëndamaay gi lan mooy loxo boobu loxo bu ñu xam ci lëndëm bu ñu mel ci noonu la jafee gisee waaye seetal bu baax itam bu fekkee jegeel nga ko ba delloo seewaat ko ci yii ma wax lan mooy loxo boobu sa mën-mën yépp boo jàppee ne loxo la nga nekk ci lëndëm googu lu tax mukk nga mën a gis dara ndax léppay lëndëm ak yow foo mën a jaar rek day mel ni lëndëm la ndax sa mbiru bopp sa mën-mënu bopp ba nga foogoon ndax kàttan la di loxo ci yow lépp lëndëm la lay jural wa man lam yajalillahu lahu nuuran fa ma lahu min nuurin leer yàlla rek ko am yàlla rek ko mën a maye ku yàlla defalul leer mënul am mukk leer wa man lam yajalillahu koo xam ne yàlla defalu ko lahu muy am nuuran leer fa ma lahu min nuurin amul fenn fu mën a amee leer leer daal yàllaa ko moom mooy leeru asamaan ak suuf ku ko yàlla joxul mun loo ko am foo jaar lëndëm lay doon kon yàlla ñu yàlla may leeram alam tara ndax da ngaa gisul yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne anna allaha naka yàlla yusabbihu lahu mu ngi koy sàbbalal man fi samawaati képp ku nekk ci asamaan wala lépp lu nekk ci asamaan wala ardi ak lu nekk ci suuf lépp mu ngi sàbbalal yàlla lu nekk ci kaw ak lu nekk ci suuf lépp mu ngi tudd yàlla ndax yàlla nekk fu nekk yore jaam ñi ci fu nekk jaam yi yépp yëg nañu nekkul yàlla ñu ngi sàbbal nekkul yàlla wa tayru janaaw yuy naaw ci kaw asamaan wala ci kaw suuf saa faati ñu ngi def ay sàppe ñu ngi def ay sàppe yoo xam ne tàlleeku kullun ku mu doon ci ñoom ñëpp rek ak alima xam na yàlla salaatahu naka lay jullilee yàlla wa tasbihahu te xam na moom yàlla itam naka la ko mbindee fii di tàmbale ndax wallahu yàlla alimun ku xam la bi maa yafaluuna ci lépp loo xam ne lii ñoo ngi koy def kon léppay jaamu yàlla ña ca kaw ak ñi ci suuf te ñëpp la yàlla xam nañu jaamoo yàlla yéefar bi sax mu ngi jaamu yàlla te yëgul ne mu ngi jaamu yàlla waaye ñàkk a yëgam ne mu ngay jaamu yàlla moo tax jaamu nga du jaamu bu yàlla gërëm jaamu na ca yëngatu ga waaye du jaamu ca la yàlla gërëm ndax balaa yàlla gërëmal jaam bi rek jaam bi gëm yàlla gëm yonentam bi lu mu ca tegati ci jëf rek jaamu lay tudd moo tax jëf yi ci yéene yi lañ koy attee walillahi yàlla am na mulku samawaati nguur ak asamaan yi wal ardi ak suuf yi nguur ak asamaan ak suuf yëpp moom yàlla mooy ki nga xam ne moo ko moom ku foog ne ndax réew ma nga nekk nguur lépp nga ci foofa nga mujj nekk jaamu ñooña yore nguur ga ngir bëgg sa àddina baax boo doxee tuuti génn atteeb réew mooma dugg feneen foo xam ne keneen na fa nekk ab jamono bu gàtt dee ñëw far nga jeexal nag ci àddina du gàtt ci beneen jamono boo xam ne beneen buur a ko moom kon teela la gëm yow léegi ne mbooleem nguuru kaw ak nguuru suuf yàlla mooy buur bi nga jubóog yàlla baax la fu mu mën a doon baax la ci mboolem jamono bu mu mën a doon àddina la ba àllaaxira kon jaam bi war naa yëg nekk yàlla di buurab asamaan yi ak suuf yi mu jéem a juboo ak boromam lu raw na muy jéem a jubooyee ak buuru suuf sa mu dëkkee jubóog ñëpp a baax waaye jubóog yàlla ku ko def da nga jubóog ñëpp ku jéem a jubóog nag ñeneen i mbindeef mu fàtte loola yàlla yàlla def ci xolu mbindeef yooya ñu dëdd la ñu mere la ñu mbugal la te fekk kenn deful ci ñoom loola dudul yàlla rek moo leen xiir ñu mel noonu ci yow ndax yaa dëdd yàlla nga bëgg yàlla jublu yàlla yàlla def mboole bi def mit ñu jublu la rek bëgg la teral la fekk yàlla rek moo lay teralee ci ay bindéefam kon ku muus ku am tal ki mooy ku yëgee yàlla nii buñ nee nit a ñàkk xel nag yi ñu pare ñàkk xel lu tax ndax mooy ka foog ne ndax lépp fii la mu jeex kon xel mooy ki gëm yàlla gëm yonentam xam ne yàlla moom moom nguurug asamaan ak suuf wa ilallahi te kat ci yàlla lay dellu almasiru mujj yëpp ku nekk bu yëgee ne tey yàllaa fi nekk yàllaa moom lépp ëllëg it dañuy delluwaat ci yàlla yàlla nekkaat fi moomaat lépp kooka mënatul ñaawal mukk lu baax rek lay mën a def te kat loolu mooy baatam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla lañ fi nekkal bi ñu fi nekkee ba yëg ne ñoo ngi fi buñ demee ba jeexal ba yëg ne sunu nekk ndoom aadama gi jeex na fi itam fañ jëm yàlla rek fa nekk ku teel a yëg lii kay doo mën a mooy yàlla kon wa ilallahi day dellu ci yàlla almasirul mujj yi waaw alam tara ndax da ngaa gisul ne anna allah naka yàlla yus ji mu ngay wamat saxaaban ay niir yàlla mooy kii wamat mooy kii ñor di ay niir su ma yu allifu baynahu mu dajale niir yooya mu dajale diggante niir yi bañ dajewoo di benn niir su ma yajaaluhu mu def nag loola rukkaaman mu nekk di aw tiig mu nekk di lu dajaloo lenn ci kaw lenn lenn ci kaw lenn fa daraa nga gis nag alwat sa taw bi yaxruju muy sotteeku min xilaadi yi ci diggante niir yooyu yàlla mooy kiy jël niir yi di leen dajale di leen wamat nga xool jaww ji niir yi benn bu nekk di jógee fa muy jógee di dem di dajee yéeg moromam ba nga mujj gis niir yi bari lool yàlla daal di génnee nag ndox ci diggante niir yi yàlla miy def loolu wa yunazzilu mu wàccee mina samaa'i ci kaw asamaan min jibaalin ci ay doj yoo xam ne biha day nekk ci yooyu doj min baradin ci ay yuur min baradin ci ay yuur lu mel ni ay yuur buñ ko waxee mooy ndox muy sotteeku def ay donji fa yusibu yàlla sotti nag fii ca loola man yashaa'u ku ko soob yàlla sottil nag loolu ku ko soob muy taw boo xam ne yàlla koy sottil aw xeet bu ko soob wa yasrifuhu ba tey mu dëdduloo nag taw booba am man yashaa'u ku ko soob yàllaay sottil ndox mooma ku ko soob gàncaxam sax naat waaye mooy sotti itam taw ba feneen dëddu ñeneen ba ñoom it ñu woowle marle duñ mën a am gàncax loolu yëpp yàlla koy def yakaadu dana jege sanaa barqihi leeru melax ba di génnee ci diggante niir yooya yadhabu di yóbbu bil absaar ci gis ya jamono boo xamee ne niir yi daje woo na yàlla nam ma génnee ndox ci diggante niir yooyu dañuy dégg ay dënnu dañuy gis ay melax di xotteeku melax yu leer naññi bay xaw a këf bëtu nit ñi ndax leer yuqallibu llahu layla yàlla di wëlbati guddi wa nahaara ak bëccëg mu leen di soppi guddi léeg-léeg mu ñëw léeg-léeg mu dem bëccëg ñëw guddi dem bëccëg ñëw wala bëccëg dem guddi ñëw yàlla miy wëlbati yooyu mbir ci kàttanam waaw yow jaam bi inna fi dalika na nga xam ne nekk na ci loolu la ibratan waarute la ibratan tegtal boo xam ne lii ulil absaar yi borom xelital yi ñoom ñëpp ñu ngi janoo ak yooyu muy ay kéemaan lii ñu wax lépp ay mbir la ay kéemaan la borom xelital yi nag ñoom danañ ko tegtaloo mu jural leen ñu mën a xam ne yàlla rek kay borom kàttan ragal jamu wallahu yàlla xalaqa bind na kulla daabatin lépp luy aji yukkat lépp lu nekk di dund lépp rek yàllaa ko bind min maa in te bindee ko ci ndox lépp luy dund yàlla nga ko bind te amalee ko ci ndox ndox mooma nag man ndox la am mën yu la wala waaw sax ndox rek ndax bu ñu nee gàncax gi sax na mu ngi jógee ci sëyub asamaan ak suuf asamaan sottil ndoxam suuf suuf génneel koy doomam di gàncax gi ni nga xamee ne bàyyi ma yi dañuy sëy ndox jógee ci góor jëm ci jigéenu bàyyi ma doom juddoo ca lépp nag noonu la kon yàlla nee na wallahu yàlla xalaqa bind na ku la daabatin lépp luy aj yukkat lépp luy dund min maa in mu ngi ko bindee ci ndox fa minhum nag am na ci yooyu mbindeef man yamshi yoo xam ne dañuy dox ala batnihi ci biiram am na ci mbindeef yoo xam ne ci seen biir la ñuy doxee di watatu niki ay jaan wala boog nga ne fa minhum am na ci ñoom man yam ci ñoo xam ne dañuy dox ala batni yi ngir rek ñu suuf suur biiram am na ñoo xam ne fu ñu dox jëm lu ñu lekk rek la ñu jublu dafa mel ni dund bi pour ñoom lekk rek la dund ngir lekk rek te bu fekkee dund bi dund ngir lekk rek la day mel ni doo dee noppale ko sax ci loolu moo gën dañoo war a dund dund bi ngir balaa muy jeex ñu mën cee wamatu bay bu ci yàlla waaye dunduñ dund bi ngir rek lekk ak naan mu jeex lekk ak naan dañ koy jëfandikoo ndax ñu gën a mën a dund dund bi mën ñu yeggale ci fa yàlla namm ci ñun kon fa minhum am na ci mbindeef yi man yam si ala batnihi ñuy dox ak seen biir lu fees seen biir rek moo leen yitteel wa minhum am na ci ñoom ba tey man yam si ñoo xam ne dañuy dox ala rijlay ni ci ñaari tànk lu mel ni nit ni muy doxee ak ba njanaaw yi ni ñuy doxee ñaari tànk la ñu am bu la neexee it nel wa minhum am na ci ñoom man yam si ñuy dox ala rijlay ni ci ñaari tànk nga xam ne sëy rek moo leen yitteel li ci diggante ñaari tànk yi moo lay yitteel jamono bu nekk rek te mooy sëy ñoo xam ne fu ñu jaar rek mbirum sëy rek moo lay yitteel mbirum jigéen rek moo lay yitteel am nañu mel noonu wa minhum am na ba tey man yam ci ñuy dox ala arbain ci ñeenti tànk lu mel ni xar yeeg nag yeeg rab yi doxee ñeenti tànk yàlla findi na mbindeef yu mel noonu wala boog nga ne wa minhum am na ci mbindeef yi man yam ci ala arbain ñuy dox ak ñeenti tànk mooy daraja rek lañ bëgg fuñ toll ñu ngay war ay naaru góor ngir daraja wala ñu ngay war lu jamono wanteeg seen jamono ci ay xeetu warwaay ngir daraja rek am na ñoo xam ne loolu rek moo leen yitteel loolu yëpp nag lu mu ci mën a doon nañu xam ne yaxluqu day bind allahu yàlla maa yashaa'u lu ko soob yàllaay bind lu ko soob rek ndax inna allaha naka yàlla ala kulli shay'in ci lu mu mën a doon rek xadiirun ku ko attanee la ku ko mën la lépp yàlla rek la laqad anzalna ayatin mubayinatin laqad anzalna wàccee nañu ñun yàlla ayatin ay biral ayatin ay mandarga ayatin ay tegtal yoo xam ne mubayinatin lu wér la lu biral la lu leer la muy alquran yàlla ne wàccee nañ alquran leeral na ci lépp wallahu yàlla yahdi mooy ku jubal mooy kii jubal man yashaa'u ku ko soob ila siraatin mu tegu ci yoon woo xam ne mustaqimin wu jub la te loolu mooy gënal islam yàlla mooy jubal ku ko soob ci diinal islam kon ku weddi nekk ca melokaanu ku weddi itam yàlla la baax yàlla la soob rek mu teg kooku ca loola ku jub ki tegu ci yoon wi nga xam ne mooy tracel mustaqim it na sant yàlla te xam ne yàllaa ko baaxee rek tànn ko ca loola ndax ñi bon di def lu bon ñi baax di def lu baax kum ci mën a doon rek programme mu yàlla ca moom jiitu woon na njëkk feeñam ca loola kon ku yàlla féetale yu baax ya xamal ne yàlla tànn la la tànn na la ngay ndeyjoor ci moom ku yàlla tànn ca safaan ya jàppal ne rek càmmuñ nga itam ci nekk gi rek kon yàlla ñu yàlla baaxee def ñu ñuy ndeyjoor di féetewoo yu baax yi yu baax yi di féetewoo ñun wa yaquluuna ñoo ngay wax ñoom naafiq yi nag bu yonent di woote jëmale ci njub gi di leeral yi yàlla wàccee ci ay aaya yi biral ñoo ngay wax ne aman naa ñun di dëggal nañu li yonent di wax ñun di dëggal nañu billahi ci yàlla gëm nañu yàlla ñoo ngi wéetal yàlla wa bi rasuli te gëm nañu yonent bi itam ñoo ngi jéem a topp lépp lu mu wax wa ataana dégg nañu gëm nañu te it danañ topp lii nga xam ne mooy atte yi waaye nag su ma yetta wala fariqul minhum gannaaw buñ waxee ne gëm nañu dafay am léeg-léeg fariqul aw kuréel woo xam ne minhum ci ñoom gaa yi wax loolu dañuy dëddu min baadi dalika gannaaw bu ñu waxee wax dina jubal nañu dañu mujj wàccaat yoon ba nag ñoom la ñuy woowee naafiq ndax naafiq wala nga ne faasiq al munaafiq la wax mooy baat bi mooy ki wax ne gëm na fa jullit ñi ñëpp waxee ne gëm nañu waaye gannaaw loola mu beddeeku nag dem di jëfee loo xam ne ak weddi la bu ñëwee ci jullit ñi wane ne jullit la bu wéetee ca boppam feeñal melokaanu yéefar kii mooy munaafiq kon yàlla nee na gannaaw bu ñu waxee ne gëm nañ yàlla dëggal nañu li yonent bi andi jëlee ko ci boromam ne nañ topp bu ñu wéetee rek dal di génn topp nekk di ay munafiqun wa ma ulaika déet gaa yooyu nga xam ne ñoom ñooy weddi bil muminina di ñoo xam ne dañoo gëm yàlla ñoom duñu ñu gëm yàlla seen xol ya lañ cay la ca nekk dëppoowul ak la ñuy wax ci seen làmmiñ la ñuy wax seen làmmiñ yëpp daf mel ni njub la leer la gëm yàlla la ak yonentam waaye la nekk seen xol ya weddi yàlla la kon nag munafiq mooy kuy waxee wax ju dëppoowul ak la ca biir xolam ci ngëm wa ida doo bu fekkee woo nañ leen ilallahi lu jëm ci yàlla wa rasulihi ak yonentam bi buñ leen woowee ci lépp lu jëm ci topp yàlla te toppeeku ci yonentam bi yàlla sant mu jottali yàlla bëgg ak yàlla gërëm li yaxkuma baynahum ngir mu àtte seen diggante ida fekk fariqun aw kuréel minhum ci ñoom wax rek doona ñoom ñu nga tëddu bañ a ñëwal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amoon ci arab yi ñoo xam ne ay naafeq lañu rek jamono bu ñu tooñee ka ñu tooñ ne leen nañu dem ci attekaay ba ñu atte ñu te attekaay ba mooy fa yonent nekk sallallahu alayhi wa sallam fu mën a nekk rek foofa attekaay la koy atte mooy moom jamono boo xamee ne am na xew-xew bu dox seen diggante ñoomi neen ñoo tooñ ñu leen nañ dem ci yonent bi nga xam ne mooy atte ci dëgg ñu dem ci moom mu atte ñu ñoom dañuy wax ne déedéet nañ dem ñu tànn keneen ku dul julit koo xam ne kii bànneex bakkanam lay atte ndax xam nañ ne yonent bi bu ñettee ci moom ci dëgg rek lay atte moo tax ku tooñ ki du doon bëgg ñu koy indi ci yonent mu atte ki ñu tooñ nag moom day xam ne yonent bu ñëwee dëgg rek lay atte buñ demee ci moom mu war koy jox dëgg kon naafeq yi ñoom buñ daan woote ñu dem ci yonent mu atte leen ñoom duñ bëgg a ñëw ci yonent ndax xam nañ ne buñ ñëwee ci moom rek mu jox leen toor ba jox ña ñu tooñ dëgg ak kuñ mën a doon ñoom nag dañ daan wax ne wa ida doo buñ leen woowee ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum ngir mu àtte seen diggante ida fekk fariqun kuréel minhum muayiduuna ñu ngay dëgg ne buñ dem ci yonent bi wa in lam yakun lahum alxaqu bu fekkee nag amuñ dëgg yatu ilayhi mutiiniina ñu nga gaaw wa in yakun bu fekkee nekk na lahum lahum alxaq bu fekkee am nañu dëgg yatu ilayhi ñu ngay ñëw ci yonent bi nag mutiiniina di ñu gaaw yàkkamte yegg ci moom ku ci am dëgg daal yàkkamti nga ñu yóbbu la ci yonent mu àtte la ku ci amul dëgg ne ne nañ dem ca naaf ca ca ca yowar tàngal mu àtte ni te lii moo daan doon seen mbir waaw affaire xuloo bi ñu maradun ndax ñoom seen xol yi dikk ci nekk ñoom daal seen xol li am ak kéefar moo ci nekk ku gëm yàlla day bëgg yonent bi jamono bu nekk sallallahu alayhi wa sallam ay àtte ma koy àtte am na benn naafeq bu mos a def lu nu mel ñëw ci Omar ibni Xataab ñaar lañu ñu am lu xew seen diggante ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu atte leen mu ne moom atte ba doy ko ñu ñëw ci Aboubacar Aboubacar atte leen mu ne moom atte ba doy ko ñu ñëw ci Omar ibni Xataab ne na leen atte ki nga xam ne moo yore dëgg ca kaw morom ma ne ko ñun de dem nañ ci yonent bi atte nañu bañ na nee na doy ko ñëw nañ ci Aboubacar atte nañu bañ na nee na doy ko ñëw nañ ci yow Omar ibn Xataab ne waa xaar leen ma ma ñëw dugg ci néeg bi rek jël jaaseem ñëw dagg bopp baatuwaaj yi ne ma wan la ko atteeb yàlla ak yonentam doy atteeb Aboubacar doy la ma wan la man ni ma kay atte xalaat ba siiw ñu ne Omar ibn Xataab rey na ab julit alxuraan ñëw seetal ko ne abu Omar ibn Xataab ki mu rey naa fekk la kon nag ku àtteeb yàlla ak yonent doyul wala nga ne àtteeb yonent doyul rek ndax àtteeb yonent mooy àtteeb yàlla kooka lu mel noonu rek la yeyoo nañu xam ne du ab julit ab julit day àtte woon ci àtteeb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam afi qulubihim maradun seen xol ya daal ak feebar ca nekk ku gëmul yàlla doylawul àtteeb bi yàlla xolam dafa feebar dafa ràgg wala boobu amee faabu ndax dañoo sikk ci yonent bi li ko yàlla jox mu indi ko ci xeet bi ndax dañoo am sikk ne loolu jógewul ci yàlla moo tax ñuy bañ mu àtte leen am yaxaafuuna wala dañoo ragal an yaxiifa allahu alayhim yàlla wëlbati leen yàlla jéngal leen wa rasuluhu ci aw àtte ndax dañoo ragal kookaan lay rayloo ay nit yoo xam ne na nga leen di xeebee mooy ray ga kon bu leen di def xibaar bu ñëw ngeen dëggal ko fexeel di laab fexe leen di laab lu xibaar yi ndax dëgg la wala déet te di toroxal sax ñi nga xam ne ñooy faral di indi xibaar yooyu nga xam ne day jaxase ay nit innama kaana qawlu muminina innama kaana qawlu almuminina ida duu ila allahi wa rasulihi li yaxkuma baynahum innama kaana nekk na qawlu almumin qawlu almuminina waxi ñu gëm yàlla yi ida duu bu ñu leen woowee ila allahi ñu jëm ci yàlla wa rasulihi ak yonentam bi li yaxkuma baynahum ngir mu àtte seen diggante an yaqulu ñu wax ne samicnaa dégg nañu li yonent ate wa ataana te topp nañu ne lim wax lépp muy dëgg ñi gëm yàlla ñoom lu ñuy wax mooy bu ñu leen waxee ne kaay leen ñu yóbbu leen ci yonent mu àtte leen ñoom dañuy gërëm àtte booba wax ne dégg nañu li yeneen sa wax te dañuy topp lépp amit duñ ca bàyyi dara xam nga ñooñu wutee na ñoom ñi lay waxin yàlla nag ne wa ulaika gaa yooyu nag gëmee nii toppee nii um ñoom de al muflixuuna mooy ñu taxe ñi mul muflixuuna gaa yu taxe yàngoogu gaa yu mucc yàngoogu gaa yu raw yàngoogu wa man yuti allaha képp ku topp yàlla wa rasulahu ak yonentam ku topp yàlla ak yonentam wa yaxsha allaha te ragal yàlla wa yattaqihi te daw lépp loo xam ne lii lu yàlla tere la fa ulaika gaa yooya humul ñoom de alfaizuuna mooy ñu taxe ñi gaa yu taxe yi boo bëggee xam ñooy ñan mooy ñi topp yàlla ak yonentam ragal yàlla lool di daw lépp lu yàlla tere di yéemantu ci lépp lu yàlla digle boo bëggee xam gaa yi nga xam ne ñoo am fawtu ñoo am texe ñoo am mucc ñoo am raw gaa yaa ngoogu gaa yooyu ñooy ñu moom àjjana wa aqsamu billahi jahda aymanihim dañuy gëñ nag dayoob gëñ wa aqsamu dañuy gëñ billahi ci yàlla jahda aymanihim dayoob ngëñ ne la in amartahum bu fekkee yow yonent bi digal nga leen ne ñu nañu dem jihaat yi danañ wax ne la yaxrujanna danañ génne dem ca la nga wax naafiq yi boo bëggee xam ñan lañu boo wootee jëmale ci jihaat dañuy gëñ di wax ne danañ ànd ak yow ci jihaat ja bu yonent dajalee saxaaba yi di leen yëgal xeex war naa am ñoo gën a mën a wax wax ji rafet wane ne dinañ ànd ak yonent ca la mu woote qul waxal ne daatun topp maarufatun gu ñu xam ñu topp ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo gën di gëñ ngëñ goo xam ne dëgg amu ci te nag loola jamono boo ko seetee lu bari la ci mbooloo mu mën a doon bu ñu toogee di wax lu doxal mbooloo ma te mbooloo ma di yëngatu ci dëgg di nga dégg ñoo xam ne wax ju neex boo koy dégloo ci seen làmmiñ da nga naan mbooloo mi kay léegi tey ñu am doole joo xam ne dina tiim mbooleem doole àddina bi ci wax ju neex ju nekk dinañ ko wax waaye bu ñu génnee ñu ñàkk solo la ñuy doon wax rek la naafiq yi noonu lañ daan def bu yonent waxee ne bés sàngam danañ xeexee wala suba dinañ xeexee ñu toog ca jataay ba ñuy toog di waajalee seen dem ca loola naafiq yi da ngay dégg ñuy wax seen wax yu neex lool wax di kañu di wax ne kenn du leen fa mën ca seen jaafeeg ci joxe seen alal yëpp bën loo ko xeex boobu waaye buñ xasee ba jog dara desul lu dul dem nga gis leen ci yeneen melokaan yu wutee ak lañ diggante woon ne dañ koy def loolu nag la yàlla di wax ne nag topp yonent bi ci topp gu ñu xam moo gën ñuy gëñ di wax lu dul dëgg ndax inna allaha nag yàlla xabiirun ku xam la bi ma taamaloona ca lépp loo xam ne yéen a ngi koy def ci ay topp ci wax la mbaa jëf wala lu ngeen ni mooy ci ay wax la ay ak ci jëf qul waxal yow yonent bi rek ne leen atiu allaha na ngeen topp yàlla wa atiu rasula te na ngeen topp yonent bi wax leen yow loolu mooy li la war ne leen nañu topp yàlla nañu topp yonent bi waaye fa in tawallaw bu fekkee ne dëddu nañu bañ a topp yàlla ak yonent bi fa innama alayhi la nga xam ne mooy li war yonent bi fa innama alayhi maa xumil la li war yonent bi moom mooy li ko yàlla asteeg ci xam-xam mu war ko jotale xeet bi lii mooy li war yonent bi moom na jotale rek wa aleykum maa xumiltum yéen it li leen war nag mooy li yonent bi indi ci yéen digal leen ko ngeen jëfee ko ci topp ko yonent bi jotalee ko war toppaleen war mu ngi bu jotalee rek la ko waroon yëpp def na ko wa in tutiuhu bu ngeen toppee yonent bi nag tahtadu kon di ngeen jub jëm ci yoon ba nga xam ne moo leen di may ngeen mën a yegg ci kennu yàlla mën a am ak texe cag yegg ga ndax wa ma ala rasuli yonent bi moom dara waru ko ilal balaaxu lu dul mu jotale rek jotale goo xam ne almubinu gu wér la gu sell la ci la ko yàlla yónni yonent bi moom jotale rek moo ko war waaye nag ndax li mu woote nit ñi gëm ko topp ko ca loola moom du yitteem loola yàllaa ko warlu li ko war na jotale rek kon nag ngeen déggee ci ne yow kilifa gi ci sa biir kër yéegleel ne njuba ngi wooteel jëmale ci njub ga ku la ca topp def nga la la waroon ku la ca toppul la la waroon def nga la ca def àtteeb yàlla rek la ci ay jaamam kenn ku nekk loo yëlif bul noppi boo noppee defoo la la war yonent bi la yàlla yónni ci ñëpp muy kilifa yi ñëpp moom la yàlla wax ne la ko war mooy na jotale rek la war jaamee nañ ko dégg topp ko ku topp baax na ku toppul la waroon yonent def na ko kon yow it la nga nekk kilifa met ca noona rek koo mën a yëlif nga yëg ne mu ngay jog di defi lu bon ba yëg nga ne mu ngay defi lu bon itam bu mu tee buy jog di demit wax ko ne ko lu baax laa ngi nag sa noppi yëlif nga jigéen ji mu ngay jog di dem donte def la wóor ne la muy defi baaxul waaye gis nga ko mu ngay dem ak bopp ne sax ne ko muurul yow def nga la la waroon boo ca waxulee dara rek da ngay bokk ak moom bakkaar ba kon ku yëlif ku nekk fexeel di jottali ci ñi nga yëlif lay wareefu diina ca moom wa in tutiicuhu bu ngeen ko toppee tahtadu da ngeen jub wa ma ala rasuli dara warul yónent ilal balaaku lu dul jotale rek almubinu gu wér ci lañ ko yónni waadallahu yàlla dig na ala diina gaa yi nga xam ne aamanu gëm nañu min kum ci yéen yàlla dig na ñi nga xam ne ñoo gëm ci yéen jullit ñi wa amilo saalihaati te ñuy jëfee yu baax yi ne la yastaxlifannahum dana leen wuutal fil ardi ci suuf ñu wutu fa ay yéefar yu fa nekkoon te fetteerlu yàlla dig na jullit ñi ne bu fekkee ne gëm nañu yàlla jëfee santaane yàlla yàlla dana leen jox ñu leen wuutu ci kaw suuf yàlla dana leen def ñu nekk ñu wuutu yéefar yi jàpp tey ne ñoo moom réew yi ci seen naataanga yi leen di gis ak bët yàlla dana wëlbati mbir ya jox doole ja jox nguur ga jullit ñi kama staxlafa ni mu wuutalee woon alladina gaa yi nga xam ne min qablihim nekkoon ne ca leen jiitu ca xeetu bani israila yàlla moo dige ndige laa ngi képp koo xam ne bëgg naa am nguur gu neex bëgg naa am jàmm àddina bëgg naa am lépp luy teranga la ca feeñ ak la ca nëbbu na gëm yàlla topp yàlla jëfee yu baax yi rek na xam ne lépp lu fi gis mu mel ni teranga la ca loxoy keneen itam yàlla dana jëli loola di teranga teg ko ca loxol kii gëm yàlla topp yàlla digee la bu yàlla digee te du dañ mukk di ko digee ba léegi ndigee laa ngi ku jaar ci yoon wa rek yàlla màcc ci lam digee woon rek te ñun ñëpp bëgg lu baax yoon waa ngi gëmal jëfeel telalal loo fi gis mu mel ni teranga ca loxol keneen itam bés dana jot yàlla jël ko jox la ko ni mu ko joxee woon ñi la jiitu woon ci boobu melokaan wala yu makkinan na dana leen jàppandalal lahum ca ñoom diinahum seen diina alladi diina islam ji nga xam ne irtada lahum yàlla gërëmal na leen ko muy seen diina diina ji nga xam ne itam mooy diina lislaam ña cay nekk di ko jéem a matal buñ jamono wanteeg ay yéefar du ñàkk danañ leen xatal ca loola di leen jéem a indi lépp luy lor ngir lor ngir lor leen ca waaye ñemeel rek gëmal yàlla rek jëfeel rek yàlla dina la dooleel jox la lépp luy dooleel ci yéefar yooyu amoon dana la may kóolute gu mat sëkk nga mën a jaamu yàlla ci diine ji yàlla gërëmal la muy diine ji yàlla gërëm te wala yu baddilannahum dana leen wëttalal seen ngëm seen seen loolu ñu nekk ragal gañu ragaloon jaaxle yi doon jaaxle ca noon ya indil leen ko ci ay lor yàlla dana leen wuutalal min baadi xaw fihim gannaaw seen ragal ga am nan mu jox leen ak wóolu boo xam ne dañuy nekk nag léegi ci dal dootuñ jiit dootuñ ragal ndax doole ji yàlla joxoon yéefar yi ñu leen cee xeex léegi yàlla may na leen doole ja seen loxo lañ ne kon kay dinañ gën a mën a jàmm seen borom yaabudoona nii danañ ma jaamu bu boobaa laa yusrikuuna duñ bokkaale bii ci man see an dara buñ demee ba dooleem ma jox leen ko wuutalal leen ca la doon xiwal ya danañ ma mën a jaamu te dootuñ ma bokkaale kenn nag boobaa kon nag bëgg nañu am teraanga bëgg nañu raw ndigal la bu ca jaaree ñoo moom teraanga yépp ñoo moom kóolite ga du waay jum mën a doon ci xeetu waaye ku mën a ñëw indi ak lor waaye nag gannaaw bu yàlla wëttalee doole ya jox la ko yàlla digle ne dinaa la jox sa diine ji nga jaamu ma ci ci wóolu nekkul ma bokkaale ak dara wa man kafara képp ku weddi ba'da dalika gannaaw xiwal yii ak dal gii yàlla maye fa ulaayka yooya gaay de hum ñoom alfaasixoona ñooy faasix ya ndax léeg-léeg yàlla xiwal jaam jaam bi dem ba mu yàgg mu beew di mooy yàlla mel ni amatul borom boo xam ne am na lu mu ko sant ci lu baax am na lu mu ko tere ci lu bon yàlla ne ku mel nii nag na xam ne moo dellu si waat nekk faasiq génn topp kàngu amoon na ca jamono ya ñu meloon noona ba beew rey Seydina Ousmane ñoom ñooy ñu njëkk a njëkk a wàcc yoon wi yàlla dige kon nag yàlla nee na wa aqimu salaata na ngeen di taxawal julli yi wa aatu zakata na ngeen di joxe azaka yi wa atiu rasula na ngeen di topp yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam loola de bu ngeen koy def laallakum mun na am yéen ñëpp turhamuuna dinañ leen yërëm ci yërmande yàlla ju mag yi laa taxsabanna bul njortu bul foog alladina ña nga xam ne kafaroo weddi nañu mujisina ñuy ñoo xam ne dañoo tëg yàlla dañoo raw yàlla dañoo lottuloo yàlla ci mu mën leen a mbugal bul foog loolu mukk ñi nga gis ñu nekk ci kéefar jëm mooy yàlla di def seen mooy yàlla yu wér yoo xam ne ku ko gis xam ne gaa yaa ngi def mooy yàlla ci seen lépp luy doole ñu ngi koy mooy yàlla ba mel ni ñoo tiim jullit ñi ak doole ba ñu ngi leen di lottuloo bul foog ne ndax ñoom dañoo lottuloo yàlla bul foog ne mukk yàlla dafa mënul si ñoom dara léeg-léeg nag mu naagaloo nit ba tax mu jéem a jog dem wuy ji ñooñe seen woote mu ji nekk yéefar waaye bul foog ne ndax nag déedéet jullit dafa yeyoo ñu suufel ko yéefar bi nekk ca kaw déedéet ñoom lottulowuñ yàlla mukk fil ardi ci suuf na nga xam ne rek wa mawaahum seen mujj annaaru safara lay doon wa bisa ta bon na ñaaw na almasiru seen mujj ga ñuy mujj ca safara lu mu yàgg-yàgg rek na nga dégg ci la yàlla wax ne sa nastadrijuhum min haysu la ya'lamun yàlla ngi leen di diri di leen yóbbu foo xam ne ñoom xamuñu teeruwaay bu mucc xamuñu teeruwaay ba fu muy doon ci xeetu mucc mbugal ma rek la ñuy mujj yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla beneen wax la ndax saar wi lépp ay ndigal la ak i tere saaru nóor saaru matale la ndax yàlla wax ne ayatin mu bayinaat rek la ci la ci andi nee na yaa ayuha alladina amanoo yéen ñi gëm yàlla li yastadinakum na diitu alladina ñi nga xam ne malakat moom na le moom na ko ay maanukum seen i ndeyjoor maanaam ay jaam yu ngeen am jaam ci këru sangam moomeelu sang bi la yàlla nee na yéen ñi gëm yàlla jaam yi dañ leen di diisu dañ leen di diisu kañ buñ bëggee ñëw ci seen biir seen i néeg nañu diisu wala dina ak gaa yi nga xam ne lam yablughul xuluma géntaguñu jotaguñu maqaar jotaguñu ci at loo xam ne gént nañu minkum ci yéen di ay gor di ay góor wala ay jigéen ni ngeen di diisu talaata maratin ñetti yoon nañ leen koy diisu ñetti yoon ci ñetti waxtu wax jooju mooy koo xam ne kii jaam la koo xam ne kii xale la ñetti waxtu yii nga xam ne jamono bu nekk ñoom dañoo jaxasoo waa kër gi lool mën a dugg ci néeg bu nekk ñetti waxtoo ngi nañ ciy diisu ñetti yoon xam nga jànq bi liggéey ci kër gi kenn la ci sax jamono bu nekk ubbil nañ ko bunt yi mën na dugg fu nekk def liggéeyam wala koy dimbandikoo ci xale la ci ku mu mën a doon la koo xam ne jege na la jamono bu nekk mën na dugg génn ci sa néeg yàlla digle na ne ñetti waxtu ñooñu nañuy diis lu man ñetti yoon min qabli salaatil fajri njëkk julli fajar nañu diisu waxtu la woo xam ne teel na mun na am nit ko ca biir néegam mel na melokaan boo xam ne ku ko fa bett di nga ko fekkee lu ko neexul ñu fekk ko ca noonu kon balaa ñuy dugg nañu diisu wa xiina taddaxuuna siyaabakum ak fa ngeen di tegee seen i malaan mina zahirati ci njolloor digg bëccëg nga xam ne waxtu noppaleku la waaye mun na nekk ca néegam di noppaleku ci melokaan bu mu bëggeewul ku ko ca fekkee noona kay dugg na diisu wa min baadi salaatil ishaa yi ak gannaaw julli gaye ba tey itam bu ñu naree dugg ca néeg ya nañu diisu salaatu awraatin ñetti awra ngoogu yoo xam ne lakum nekkal na leen ñetti waxtu yooyu ñetti awra la balaa ñuy dugg ci néeg bi nañu wax asalaamaaleykum benn asalaamaaleykum ñaar asalaamaaleykum bu ñu ñetteelee te kenn fayu leen nañu dem buy benn ba ñu fay leen yettil ñaar wala ñett ñu fay leen ci baax na waaye daal amuñ sañ-sañu dugg lu dul nuyoo nañu bañ nangul leen buñ leen nangulee nañu dem ndax waxtu yooyu ñetti waxtu awra la ci ku nekk salaatu awratin ñetti awra la Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu bi mu nekkee buuru jullit ñi dafa daan wër ci biir Medinatu Munawara di seet ñi jubal ak ñi moy benn bés ñu xamal ko ne ko am na benn góor gu nekk fii ci dëkkab yonent bii Medina moom daal mag la moo xam ne bu guddi jotee day naan sàngara màndi woo ay jigéenam ñu koy tëggal muy fecc rek Seydina Omar comme dafay wër dëkk bi di seet ñiy jubal di seet ñiy dëng mu jàjj leen mu fexe rek ba yegg ci kër waaja yéeg miiru kër ga wàcc ca biir kër ga fekk waaji ca loola ñu ko waxoon mu ne ko yaa bon xas ko lool yow mag mi nga doon yaay def ci dëkkab yonent bi lii mu ne ko wóoluloo ma ma ma wax ndax wóoluloo nga ma maanaam ñemeloo ma ma wax yaay buurab jullit ñi su ma waxee lu la neexul mun nga maa teg àtte yoo xam ne dina métti ci man damaa bëgg a wax ndax may nga ma ma wax Seydina Omar ne ko waaw waxal mu ne ko waaw man mooy naa yàlla benn yoon yow mooy nga yàlla ñetti yoon sama nit kese laa te yow yaay buurab jullit ñi bi ngay dugg ci kër gi diisuwuloo te yàlla dafa wax ne bu leen dugg néeg bu dul seen néeg te diisuwuleen yàlla wax na ne bu leen raj rajlu wala tajasasoo bu leen di yiiru nit ñi di xool seen i mbir te ñëw nga def loolu bu leen dugg te diisuwuleen te bu leen duggee ci néeg yi lu dul ca bunt yi itam te yaa ngi jaar ci gannaaw bunt yi ci miir bi ñett yëpp def nga ko te yaay buurab jullit ñi man nit kese rek laa Seydina Omar daal di daw ak xel woo xam ne génn kër ga di dóor bet boppam di pes boppam di wokk boppam naan Omar oo Omar ñëpp la raw ñëpp la ëpp xam-xam ak suufam ga waaye lépp njàngale rek la kon nag kenn ku mu mën a doon di def lu nuru mooy yàlla te mel ni mu ngi koy nëbb nëbb lekk ko boo ko mënee laaye biir mu bàyyi ko laaye ko biir boo ko mënul laaye biir nag bu ko dem di ko weer ba ñëpp di ko yëg ndax yëgu ñëpp ne mu ngay moy mën na am mu féttéerlu ca moy ga kon nag noonu la ci àttee yëpp yàlla nee na bu leen di raj rajloo bu leen di lu ñu tuwante seen i mbir ci seen i biir te ku ci mooy yàlla bu diwal sax moy boo mënee bañ a moy bañ a la moy mooy li gën bu la bakkan notee ba nga moy tuubal réccul dellu ci yàlla bul weer sa bopp te bul fexee ñu am bunt yu ñu la weeree itam ci sag mooy di leen diisu balaa ngeen di dugg ci bunt yi bu leen duggee ci bunt yi te bu leen di raj raj loo di seet seen i mbiri biir kon nag aaya baa ngi yàlla nee na yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla li yastadinakum na diisu alladina ñi nga xam ne malakat moom nañu ay maanukum seeni loxo ndeyjoor ñoo leen moom nañu jiitu wala dina gaa yi nga xam ne ak gaa yi nga xam ne lam yëpp lu xool xoluma génte gu ñu minkum ci yéen nañu jiitu salaata maraatil ñetti yoon ci ñetti waxtu min qabli salaatil fajiri njëkk julli fajar wa hiina tadauna siyaabakum ak fa ngeen di tegee seeni yéere min zahirati ci njolloor wa min baadi salaatil ishaai ak gannaaw julli gaye salaatu awraatin ñetti awraa googu lakkum nekkal leen laysa aleykum amuleen nag bakkaar wala alayhim ñoom it amuñ bakkaar muy ñan seen jaam yi ak seen i xale yi amuñu junaaxun bakkaar ba baxdahun na ci gannaaw ñetti waxtu yooyu gannaaw ñetti waxtu yooyu ñu tudd nag ñooñu doon war di tàggoo balaa ñuy dugg ci néegi may nañ leen digal ñu mën a dugg fu leen neex ci lu ñuy diitoo ndax ñoo nekk ci kër gi war a liggéey liggéeyu kër gi jege la lool kon lu dul ñetti waxtu yooyu rek may nañ leen lu ñu dugg fu ñu bëgg a dugg ca nañ ko war a duggee ndax mooy tax seen liggéey rafet kon loolu la leen yàlla may tawaafuuna aleykum ndax ñoom ñooy wër seen biir ngir liggéeyal leen baadukum lenn ci yéen di wër ala baadin ci lenn ngir mën a rafetal nekk ya dugg ca néeg def fa dara dugg fële def fa dara lu nekk la ko féetewoo matal ko lu ñu ñetti waxtu yi daal may nañu ku nekk dugg fa nga bëgg a dugg def fa la la wax kadalika naka noonu yubayinu llahu lakum noonu la leen di yàlla di wéralee na leen di béralalee na leen di leeralee al ayaati aaya yi nga xam ne wàccee na ko muy ay atte nekkal leen ndax wallahu yàlla alimun ku xam la li mbiru jaamam yi xakimun ku mën a atte la jaamam yi wa ida balaga bu fekkee ne jot na nag al atfaalu xale yi minkum ci yéen alxuluma gént kon nag fal yastaasinu nañu diitu ci mboolem waxtu yi xam nga lii xale yi lañ wax ak jàmm yi ñoom ñooy diitu ci ñetti waxtu yi waaye xale yi dem nag ba nga xam ne gént nañu mat nañu muskala bu ñuy dugg nag bu boobaa nañu diitu ci mboolem waxtu yi bëccëg laag guddi laag subateel laag waxtu wu mu mën a doon rek buñ dugg ci néeg lu dul dañoo diis ndax léegi mat nañ muskalaf gént nañu kama stadana alladina min qablihim ñi nga xam ne ñi leen jiitu woon ci ay gor ak ay mag noonu lañ daan diisoo ñoom it buñ demee ba toll foofu ci mag rek nañu diis ñoom it buñ dugg mukk lu dañoo tàggoo dañoo yëgloo kadalika naka noonu yubayinu llahu lakum noonu la leen yàlla di biralalee la leen di leeralalee ayaat yi ay aayaam ndax wallahu yàlla alimun ku xam la xakimun ku mën a atte la ay jaamam ca na mu dëppooyee ak ñoom kon ubbi néeg rek dugg ci lu nga diitoo du noona aaya yaa ngi leer na yàlla ko santaane yi nii wal kawaidu ñu toog ña wal kawaidu ñu jékki ña wal kawaidu min an nisaa yi ñi nga xam ne toog nañu ci jigéen ñi naago ne dootuñ gis mbërëg naago nañ ne ñoom sax tollootul fu ñu leen di takkee ndax seen at tollootul fu ñu leen di bëggee di leen takk ñu mel noona laat yi ña nga xam ne laa yarjuuna nikaaxan dem nañ ba naago ne dootuñ leen takk ci sëy kon fa laysa alayhi na ñoom de waru leen amuñu junaaxun bakkaar an yadax na ñu teg siyaabahunna seen muuraay ya seen malaan ya jigéen ju dem ba nga xam ne gisatul mbërëk ndax ak magam dem na ba nga xam ne tollootul fu ñu koy gisee di ko bëgg a takk nga ndax ak magam kooka muuraay yañ santaan yañ santoon jigéen ñi ñu war ko di muuru moom waratu ko bu doon def bopp na itam amul bakkaar ci loola lii la alquran wax waaye nag gayra mutabarijaatin ci lu dul nag ñuy feeñal nag bi zinatin ci taar bu fekkee mage nañu te teewul ba léegi ñu ngay taar taarlu ci la ñuy wax kóodaru laak ci la ñuy wax takkaayaak ci lépp lu leen di delluwaat ca ndaw ya boobaa nag day baaxaat it ñu dal di delluwaat muuru nañu nga xamee ne ñooy xale di muuru waaye nag wa an yastaafif na ñu fegu di muuru luñ nekk nekk mag di muuru daal yàlla nee na xayrun moo gën lahu na ci ñoom wallahu yàlla samion ko xam la alimun samion kuy dégg la lépp luy waxi jàmm yi alimun ku xam la lépp lu nekk ci xolu jàmm yi luñ mage mage nag muuru ba moo gën bañ a muuru lii la alquran santaane laysa ala al ama koo xam ne dafa gumbo amul xarajun bakaar wala ala al araji koo xam ne dafa fatt amul xarajun bakaar wala alal mari di ku feebar ci amul xarajun bakkaar ñu lekkandoor ñu lekkandoor dañ doon wax ñoom ñu jiitu woon di wax naan koo xam ne dafa dem ci barab tasee faak ñoo xam ne amuñu bët dañoo gumboo dañoo patt dañoo laggi waruñoo bokkoo ak ñoom ci lekk ñoom i neen ñoo war a bokkandoor lekk loolu la ñooñu daan wax alquran ñëw di leen ci indil àtte naka la war a doonee ñoom amuñu bàkkaar ñu lekkandoor wala ala anfusikum an takuloo min buyutikum ba tey ñoom mën nañoo lekkandoor xam nga dañuy wax ne gumbo bi boo bokkeek moom di lekk mën na am nga jël loo xam ne moom bu gisoon moo ko doon bëgg a jël nga jël ko sax lekk loo xam ne bëta xelam demoon na ci wala moom mu jël loo xam ne yow xooloon nga ko bëgg nga ko ñàkk a gis tax mu jël ko ñu ne kon ñii mënuñoo lekkandoor ñoom i neen ñoo mën a lekkandoor alxuraan ni ñoom i neen mën nañoo lekk de ku feebar ki ku ràgg ki ñoom seen i biir mën nañoo lekk waaye bu ngeen lekkee ndoor ak ñoom it aayut alxuraan dina àtte wane ne kon mën na nekk ñu lekkandoor bakkaar nekku ca wala ala anfusikum an taakuloo min buyootikum ba tey aayul ngeen wala ala anfusikum aayul ci yéen seen bopp antakuloo ngeen lekk min buyootikum seen i néegi doom min buyootikum seen i néeg waaye ñu jublu seen i néegi doom aayul ci nit ki mu ñëw ci këru doomam fekk fa lekk lekk ko aayul ndax yonent bi wax na ci xadis ne yéen ak seen i doom seen i doom ak seen i alal yéen a leen moom doom ji ak alalam daal bàyyi ma ko moom kon aayul bàyyi ji dugg ci néegu doomam fekk fa lekk lekk ko aw buyooti abaikum wala doom dugg ci néegi baayam fekk fa ñam lekk ko aayul aw buyooti ummahaatikum wala seen néegi yaay ngeen fekk fa lekk lekk ko aayul aw buyooti ixwaanikum wala ngeen dugg seen néegi mbokk yu góor fekk fa lekk lekk ko aayul aw buyooti axwaatikum wala ngeen dugg ci seen néegi ay jigéen rakk yu jigéen wala mag yu jigéen fekk fa lekk lekk ko aayul aw buyooti amaamikum wala ngeen dugg ci seen néegi ay baay yu ndaw bàyyi rakki bàyyi magi bàyyi fekk fa lekk lekk ko aayul aw buyooti amaatikum wala seen néegi bàjjan ngeen fekk fa lekk lekk ko aayul aw buyooti axwaalikum wala seen néegi nijaay aw buyooti xaalaatikum wala seen néegi ay yaayu ndaw aw ma malaktum mafatixahu wala néeg yoo xam ne dénkaane woon ngeen sax caabi ya de ngeen ñëw jël caabi ya ca ka ngeen ko dénkoon fekk lekk foofa ngeen dénkaane woon caabi buntam bu ngeen fekkee lekk lekk ko it aayul aw sidiqikum wala seen néegi ay xarit ngeen fekk fa lekk lekk ko aayul ndax ay mbir la yoo xam ne dafa jaxase woon lool saxaaba yi ca jamono ba kenn nekkatul gox nekkatul ku dal ci wetu mbokkam ku nekk foo nekk yaa ngi xat islam mbokkale na leen nag alxuraan ñëw xamal leen ne kon yéen ñëpp bennoo ngeen mën ngeen duggante ci seen biir ku nekk bu duggee ci néeg moromam na yëg ne néegu boppam rek la dugg loolu moo mbokkale jullit ñi ba ñu yëgee ci ne nekk ci jullit jullit ay mbokkam aayul ngeen lekkee ko ci noonu laysa aleykum junaahun an taakulu jami'an aayul ngeen di lekkandoor ci mbooloo aw astaatan wala ngeen lekkandoor ci kenn kenn aayul ndax saaba yi dem nañ ba foogoon ne kenn warul lekkandoor moom kenn balaa ci kenn ay lekk day dox ba sonn lool di wër di seeti ku mën a bokkoo lekkam nga wa illaa mu bàyyi ko fi bañ a lekk mujj sonna leen lool ku tabe woon yonent yàlla ibrahima daan naka def ñi baax ñi nag danañuy roy ñu baax te seen i jëfi xol ba mujj foog ne ndax waratuñoo jëfee lu dul loola alxuraan ñëw na nag xamal leen ne mën nañoo lekk di mbooloo de waaye mën nañoo nekk ba tey as lekk ba tey itam as taatan ci kenn kenn kenn ku mu neex ci mën sa boolu bopp sa palaatu bopp lekk dara nekku ca fa isa daxaltum bu ngeen duggee nag bu yoo tan néeg xam nga waxoon na bu ngeen duggee néeg na ngeen nuyoo léegi nag mu ne bu ngeen duggee néeg fa isa daxaltum bu ngeen duggee bu yoo tan ay néeg yoo xam ne yéen a ko moom fa sallimu na ngeen nuyu ala anfusikum seen bopp bu ngeen di dugg néeg nuyu leen borom néeg ba bu ñu leen fayee ngeen dugg bu ñu leen fayul bu leen dugg loolu la ñu waxoon léegi nag néeg bi nga moomal sa bopp di ko dugg boo ciy dugg lu war yàlla nee na na nga nuyu sa bopp looy wax asalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin na nga wax ne jàmm yàlla na ma nekkal te nekkal mbooleen jàmm yàlla yu baax yi malaaka yi ñoom dinañ la fay lii la alquran santaane ku ciy dugg sa néegu bopp nuyoon bu fekkee aw na am nañu fa nekk sa njaboot nuyu leen bu fekkee nekku rek waxal ne asalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin yàlla nee na loolu di taxiyatan ab nuyoo la boo xam ne bii min indillahi mu ngi jógee fi yàlla mubarakatan di nuyoo boo xam ne bu barkee la tayibatan di nuyoo bu sell nuyoo bi nga nuyu sa bopp yàlla nee na ci moom la jógee te nuyoo la bu barkee la nuyoo la bu sell kadalika naka noonu nag mbir yi di leeree yubayinu llahu lakum na leen yàlla di leeralee al ayaati ay ayaat yi mu wàccee ci yéen ndax ngeen xam ko ndax ngeen tegu ci njub laallakum de kon mën na am yéen ñëpp taaqiloona da ngeen xelu da ngeen am xel ba dégg sama leeral man yàlla ba jëfee sama ndigal bàyyi samay tere innamal muminuuna bu ñu waxee ñu gëm yàlla ñi na ngeen xam ne ñoom alladina mooy ña nga xam ne amanoo gëm nañu billaahi ci yàlla wa rasulihi te gëm yonentam bi wa ida kaanoo bu ñu nekkee maahu ànd ak yonent bi ala amri ci mbir moo xam ne jaamian mu leen boole la ñoom ñëpp lu mel ni ñu toog di xutba xutba juma ñu mel ni ñu toog di def loo xam ne daal julit ñëpp la boole ñu war a àndandoor di ko ci def lam yadhaboo du ñu dem mukk di bàyyi yonent bi mu def ca loola ñi gëm yàlla bu ñu nekkee ak yonent ci mbir du ñu jóg mukk di bàyyi yonent ak mbir ma dañuy ànd ak moom ca loola ba mu jeex moo xam lu mën a doon nag buy ab xeex kenn du daw ñooy ànd ak moom ca loola ba mu jeex buy xutba ak jumaa la kenn du génn ñooy toog di ko déglu ba mu pare muy waaraate la kenn du dem ñoog moo may toog ba mu wax ba pare kon daal lépp lu boole aw julit aw mbooloo di boole dëgg bu ñu daje woo ca loola nañu nekk ca loola ba mat ci lu dul ñuy seppeeku di dem lam yadhaboo du ñu dem di la fa bàyyi xatta yastazinoohu lu dul dañoo diis yonent bi bu fekkee am na ci ku bëgg a dem sax day ñëw tàggoo yëgal yonent bi ne ko am na lu ma war a tax a dem kon maa ngi dem ngir loola bu leen yonent bàyyee ñu doog a dem bu leen bàyyiwul ñu delluwaat toog inna lazina ñi nga xam ne yastasinuunaka dañ lay jiitu ca buñ bëggee dem tàggoo ulaayika ñoom de alazina mooy ñi nga xam ne yuminuuna billahi gëm nañu yàlla wa rasulihi te gëm nañu yonent ñooña ñoo gëm yàlla ñoo gëm yonent buñ jógee bëgg a dem daal danañ tàggoo ba yonent nangu leen seen ngant yebal leen buñ demee danañ ànd ak jàmm ngërmandeeg yàlla ak yonentam ku ci def lu dul loola rek wàcce na yoon fa ida staadanuuka buñ la jiitoo nag li baadi sahnihim ci lenn ci seen i mbirum bopp kon fatan li man chita minhum bu la neexee may leen digal ñu dem ku la ci tàggu ci mbiram boppam loo xam ne moom ak boppam rek la di sax xëy na lu muy dox la pour jullit ñëpp jëriñu ci mbiram boppam la bu la neexee rek ci yow la aju may ko mu dem waaye wastaxfir lahumullaha wastaxfir na nga baal baal na nga balul lahum ci ñoom allah yàlla di leen balul yàlla ndax inna allaha naka yàlla gafurun aji bale la rahimun aji yërëme la te yow yonent bi rek yaa mën a balul jaami yàlla yàlla baal leen kon seen ndëng yeeg seen njub yaa ci yem yow daal yaa leen mën a laabal ñu laab yaa leen mën a balul yàlla baal leen kon di leen baal di leen balul di leen baal laa tajalu du'a ar-rasuli laa tajalu bu leen def du'a ar-rasuli di woo yonent bi baynakum seen diggante ka du'a i ba'dikum ba'dan ni ki woote kenn ci yéen keneen ka sahaaba yi dañoo jege woon yonent bi lool yonent bi miinal leen boppam lool ba ñu mujj ñeme ko ñeme yin boo xam ne da nga gis ku jog di woo yonent bi eh yow Muhammad Muhammad di ko woowee wooy nu comme kuy woo moromu nitam rek yàlla xam le ne yonent bi du morom yonent bi duñ ko woowee ni ngeen di woowee kenn ku nekk moromam bu leen ko defati bu leen ko defati ku ci bëgg a woo yonent bi looy wax waxal ne yaa Muhammad rasulullah yaa nabiyallah yaa rasulullah wax yu nu mel na nga ko woowee ci ay tagg ko ci tagg yoo xam ne yaa nabiyallah yaa imaam almursalin yaa rasulallah yaa xaatima nabiyina ak lu nu mel ci ay màggal na nga ko ko wooyee waaye tëb rek jël turu kesam wa rek ne Muhammad Muhammad bu leen koy def. looloo tax ngay gis kenn ku ñu dara jaal danañ la wékk ay tur yu dul jeex ndax yàllaa ko santaane ci képp ku ñuy xoolee rek bët bi. qad yaalamu xam ne allahu yàlla ladina ña nga xam ne yetasallaluuna danañu rocceeku minkum ci yéen liwaasan di nëbbutu di dem yàlla xam na ko ñi nga xam ne bu ñu nekkee yow ci mbir mu boole ñëpp kenn warul dem yàlla xam na ñi nga xam ne dañuy rocceeku ndànk-ndànk di dem ña nga xam ne yetasallaluuna dañuy rocceeku minkum ci yéen liwaasan di nëbbutu di dem yàlla xam na leen xàmmi na leen ci seen mbir ya ñuy def falyaxtari alladina yuxaalifuuna an amrihi falyaxtari na mooy ta ndeku ladina ñi nga xam ne yuxaalifuuna dañuy mooy dañuy mooy dañuy wutee an amrihi ci ndigalu yàlla nañu mooy ta ndeku an yosi an tosibahum ba mu jot leen fitnatun balaa nañu mooy ta ndeku balaa balaa di yegg ci ñoom balaa fitna di yegg ci ñoom nañu mooy ta ndeku aw yosibahum wala mu jot leen azabun mbugal moo xam ne alimun métti la di leen xaar ci àddina ak alaxira nañu mooy ta ndeku loola balaa mu yegg si kuy mooy si na mooy ta ndeku te xam ne bisub ñu fay kay mooy moyam mu ngi ñëw ala dëgg inna lillahi yàlla am na yàlla moom maa fi samawaati lépp lu nekk ci asamaan wal ardi ak lépp lu nekk ci suuf lu nekk ci mbir mu kawe la ak mbir mu suuf la suufe la nañu xam ne lépp yàlla ko moom allah dëgg inna lillahi yàlla mooy ki am maa fi samawaati nekk ci asamaan yi wal ardi ak li nekk ci suuf yi ci ay mbindeefam lépp yàlla mooy ki ko xam yàlla mooy ki ko moom xad yaalamul yàlla xam ne maa antum lépp loo xam ne yéen yéen a nga ca lépp loo xam ne yéen a nga ca nekk ca rek lu mu mën a doon yàlla xam na ko ki xam te lépp nag booy def fexeel di def la ko gërëmloo kon xat yàlla mu xam na maa antum lépp loo xam ne yéen yéen a nga ca alayhi ca loola rek yàlla xam na ko kon xat baangoogu day gën a dëgëral ne yàlla ku xam la wa yawma yurja'una ilayhi yàlla xam ne it nag fa ngeen di jaar ak seen jëf ya ba ba ngeen di teeriwaat ca moom yàlla nekkam nga yàlla xam na loolu yëpp bu boobaa nag fa yunabbi'uhum mu dal di leen xamal la ngeen xam ne nekkoon ngeen ca bi maa ci la nga xam ne amilo jëfe nañ ko loola yëpp yàlla dal di leen ko xamal nag lépp lu nekkoon ci xeetu jëf rek bés ba yàlla di jël jaam yi delloo ko ci boppam daa xamal jaam yëpp lañ doon jëf loola lan la wallahu yàlla mii bi kulli shay'in lu mu mën a doon ci mbir yi rek alimun ku ko xam la xam ku matale lool kuy attale jaam yi ci bés ba muy dajee ak ñoom di leen atte kon kenn ku nekk melal melokaan bu baax waxeel wax ju baax jëfeel jëf ju baax ci sa biir foo wét ak foo wéttale ko te xam ne am na ku lay gis boo nëbboo ñeneen ñi gisuñu laak seen seen i bët itam yàlla moom amul lu ko fàddu ci benn waxtu ci benn jamono takat waxoon na ci gannaaw ne ku gaaw lu muy xisaabee jàmm yi la kon ku nekk jaamu ku mag ku mat yëgal ne nekk nga jaamu ku mat ku mat foo toll bu fekkee am na koy daw ndax bëtam mënul yegg ci yow xamal ne am na koo xam ne bëtam moo gën a jege mën laa gis sa bëti bopp wala sa xolu bopp ku yëgee nii mbir yi foo toll yaa ngi rafetal ci sa waxin yaa ngi rafetal ci sa jëfin te nag loola kenn mënu caa yegg dayob yegg lu dul ki yegg ci kenn yàlla ba seey ca ba nga xam ne yëg na ne nekkug yàlla ak nekkam tax du ñaarati ka dund laa ilaha illa allahu fu mu tollooti day yëg ne laa ilaha illa allah ku mel nii nag mooy jaamu yàlla bi yàlla gërëm ci xeetu jaamam bi kii mooy gëm yàlla ki yàlla gërëm ay jëfam ku dul moom rek naafiq la faasiq la saar waa ngi saar wu yaatu la saar wu jotale la ci tàmbali ba ba léegi ay ayaat mu bayinaat rek la yàlla jàngale ayaatin mu bayinaatin ayaatin mu bayinaatin aaya yu wér tegtal yu wér a ngi yu leer a ngi dellu leen nag ci tàmbali saaroo ba léegi timis jot na ndi kon danañ gën a yaatal tënkaat la doon saaroo ba léegi xanaa beneen jotaay lay doon ndax julli gi jot na saar wi jeex na fii la yem borom xel yi la yàllay waxal te buñ nee borom xel kenn rawu ci ku janoog yàlla ndax nekk doof bay am xel yàlla ma mat ceeg matam nga ngay dund bu amee ko am xel mooy kii kon nag ay borom xel ñoo doon jàng lu ñu seetantal ci li ñu doon jàng lan la ki ñu ko doon jàngal mooy kan lu tax ñu tànn ko suñu jotaay bi ñan mooy mbooloo mi ngi koy waxal ñan ñooy mbooloo mi buñ génnee ci mbooloo mi tasaaroog nit ñi lan lañ war a feeñal ci seen melokaan seen waxin seen jëfin ba mbaax gi leen yàlla dénk law ci ñëpp nañu dajeewaat beneen jotaay seetantal li ñu jot a jàng am ci dégg goo xam ne dañ koy feeñal suñu waxin ak suñu jëfin yonent bi kat yàlla nee na li ko war mooy na jotale rek li war jaam yi mooy nañu topp yàlla kii atte nañu jotale jàngoon nañ ca taaj ci xadis bu njëkk ba yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku teewee ci yéen dégg na nga fexe sa dégg na nga ko jàllale ca ñeneen ndax du ñàkk ña nga ko jàllale am ci ku gën a mën a jottali sa jottali te boobaa it ngëneel la dalay dellu nekkal yow mi jàllale jataay baa ngi jataayu ut xam-xam la jataayu bëgg yàlla la jataayu fàttaliwati la na barkeelee ci ñun law ci ñeneen yal nañu yàlla gërëmal yal nañu yàlla xamal mboole melokaan yu baax yi nga xam ne yàlla wax na ne ku ko mel mu gërëm la taqale la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melokaan yooya yàlla cee xiir jaam yeneen ci yàlla xiir te saxal ñu ca te yal na barkelee ci ñun nag di law di dem ci mbooleem gox yeeg fu jullit mën a nekk di baaxee ci ñun yomb na yàlla yeneen ko yàlla defal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hurmati mawlana cheikh radiallahu taala anhu wa ma dalika ala allahi bi aziz وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى وداوى بمنه قلوبنا المرضى وقلوب جميع المسلمين المرضى في جميع انحاء العالم nañu bëggante nañu dimbalante nañu jàngalante nañu ñaanlante yiw yal nañu yàlla nangul allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqana bil haqqi wa la ila siratika al-mustaqim wa ala اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما bismillah amin amin ci biir lépp waaye ci biti lépp ndax loolu mooy tax jàmm sax mooy tax jàmm law te mooy tax lépp man te ñu wóor nañu ne ñu ngi koy amee ci ànd bi ñu ànd ak yow njàngale bi ñu ko seetlee bu baax sax li alquran war a nekk ci kaw bi ci lépp ndax amuñ def yi xam naa dañu koy wax ba moom rek ngay def fexe ba làqee ñu alquran maanaam muuree ñu alquran moom ngay def ndax loolu ngay jàngale mooy njàng bi kon nag sëñ bi loolu war na nekk biir yi lépp war na nekk biti yi lépp yàlla ko yàlla def leen kii nekk fii yàlla ko yàlla yóbbu ci béréb yépp yàlla nekk biiru béréb yépp waaye yàlla nekk bitim béréb yépp yàlla jot jëmm yépp yàlla nekk biiri jëm yëpp waaye yàlla nekk bitik jëm yëpp yàlla nekk mbiri biiri mbiri yëpp waaye na nekk bitik mbir yëpp yàlla nekk biiri jamono yëpp waaye na nekk bitik jamono yëpp sëriñ bi loolu lañu yàlla bëggaloon te yaa ngi ko indi leer na nañ yal na yàlla jàppale la yal na yàlla dooleel la yal na yàlla dëgëral la yal na yàlla saxal la wéral la yal na yàlla saxal la wéral la yal na yàlla saxal la wéral la yal na yàlla saxal la wéral la te yàlla nga defal sa jaboot yëpp zaahiran baat na yàlla nga defal sa xeet yëpp zaahiran baat na bu ñu ñaanal day ñaanal lépp yonent bi waaye ku la ñaanal ñaanal lépp yonent bi yal na yàlla fayal ñu la yal na yàlla fayal ñu la yàlla na yàlla fayal ñu la lii daal yàlla na daj fépp yàlla na daj li ñëpp laaj na daj lépp اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
amiin الحمد لله jërëjëf jërëjëf
جل